rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci biir la jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukkil leen ponk yi ci gën a fas doore kook la xew ci hôpital bu Fann ñu jàpp nekk nag yenn service bloc opératoire yi dañu koy tëj la ko ñel mu di dañu fa nemmeeku li nga xam ne moom moo di ay infection ba tax nañ jël nañu ay décision ngir nag dal di cay def lépp lu ca warandi ci ay saytu bu ñu fa jógee daañu wax ci la xew ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ak ñeenti xale ya ñàkkoon seen bakkan ah, ci ayu yi ñu weesu tax na Habib Sy di ancien maire bu Linguère jël décision ak askan wa nag ngir ñu dal di déposer plainte ci turu ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi di état bu Sénégal ndax jàpp nañu nekk la waral la xew ci hôpital Magatte Lô yépp seen loxo jugu ci buñ ci noppee daan ci toftal li nga xam ne moom moo di kàddu yi Aliou Top di président association ah, nationale de la presse en ligne ci réewum Sénégal moom nag ay kàddoom dànkaafu nguurug Sénégal ak menaces yi ñuy jot fan yi yëpp ak na mu bëggee ñu doxalee li nga xam ne moom moo di liggéey bi ci presse en ligne bi ba mu ca noppee àdduna wax itam ci situation bi nga xam ne ca la ñuy dund dañ ko faram ci biir xibaar yi Pape mbay ak accident bi mu amoon ci fan yu ñu weesu te ñu doon wax ne dañu ko dal di sox juróom benn ballu fital moom Pape mbay indi na ci ay leeral ni kii démb ngir wax ak sénégalais yi ak ñi doon wax ca situation ba Pambay nekk Pambay jamono ji mu ngi ci jàmm ak salaam ñu dal di jeexale li gën a fës ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci talaata ji yem ak ñeenti fan ci weeru mai mbokk yi xarit li mooy li gën a fës ci ponk yi ngeen taaxir lu bàkk bi jàll ñu faram fàcce ko. salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy dooree Faram Facce ak euh, hôpital euh, fan gis nañu nekk nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk hôpital ba jël nañ ay décision ci ab communiqué bu ñu fësal ngir ci li nga xam ne moom moo di ay yenn ci ay bloc opératoire yu fa nekk fu ci mel ni euh, fa nga xam ne moom moo di chirurgie thoracique ak fa nga xam ne moom moo di cardiovasculaire la ko soob nag mu di dafa am ay infection yu ñu fa nemmeeku te jàpp na nañu kane loolu mooy solution bi gën ngir nag ñu daal di éviter ak wàllante foofe ba tax ñu jël décision daal di tëj li nga xam ne moom moo di ñaari bloc opératoire yooyu euh, ba ñu ci andi li nga xam ne moom moo di ay saafara la tànk que ñuy jëflanteek ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk wàllum wérgu yaram ngir nag mën a ubbiwaat yooyu les bloc buñ ca jógee dañu dem fa nga xam ne moom moo di euh, ca euh, réew réewum Sénégal ak ak ajeem fa nga xam ne moom moo di ca Umra daldi dinay ànd ak soxnaam di Mariam Faye Sall jàll ci dimanche bi ñu weesu lañu jóge ci réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi ko bind moom njiitum réew réewum Sénégal fas yéene naa delluwaat ci am réewam ni ki tey ci talaata ji ngir nag mën a wéyalaat li nga xam ne moom moo di app liggéeyam ñu wax ci li nga xam ne moom moo di ci wàllum njàng meek njàngale mi ci ca université Gaston Berger bu Saint-Louis coordination bu étudiant yu Saint-Louis nag dal dinañuy tàmbali li nga xam ne moom moo di grève bi ñu fas ñetti fan yoo xam ne ngénteel tubaab lay doon lekk te doo fay ca restaurant ba la ko soob nag mu di euh, seenu ko wàllu euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi di Cheikh Omar te ñuy wax booba léegi te kenn déglu leen point ba ca gën a fës mu di bourse yi nga xam ne ñi ñu sélectionné ci master amuñu ko te remplir nañ li nga xam ne moom moo di formalité yi ca war yëpp ak conditions yi ñu nekk euh, jam nag jàpp nañu nekk jamono ji li ñu bëgg euh, mu di nguuru ku Sénégal daal di leen di gëstu rawatina étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca master ak situation ba ñuy dund du yomb ci ñoom ngir ñu xañ leen li nga xam ne moom moo di seen ay bourse bañ ca noppee dañ leen tegal li nga xam ne moom moo di ab ultimatum bu toll ci ayu bës ngir nag déglu ki ñu dénk wàllum njàng meek njàngale mu kawe mi bu fekkee gisuñu ci lenn loo xam ne rek ay réaction la jëflante ak état bu Sénégal ñu dem ci hôpital Magatte Lô bu Linguère Habib Sy nekk ancien maire bu Linguère moom daal dina àddu wax ci lakk-lakk gafa fa jotoon ba ñeenti xale ñàkk ci seen bakkan kàdduy Habib si nag moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo di habitants yu localité ba dal daal ñuy jël seen seenug décision ak ab collectif ngir nag porter plainte ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bu Sénégal ndax jàpp nañu ne la fa jot am ba ñeenti xale yooyu ñàkk fa seen bakkan lii di état bu Sénégal ak seen i loxo jógu ci responsabilité bi yëpp ci seen loxo la tegu te duñu bàyyi yëf yi noonu la gën ci ñoom wala lay dalal seenum xel mu di porter plant ngir nag ñu dal di àtte yëf yi. ñu wax ci li nga xam ne moom moo di hôpital régional bu Louga benn vigile boo xam ne dal di nañu koy teg loxo la ko soob nag mu di dafa doon violer benn femme boo xam ne dafa dafa marié maanaam ay viol yoo xam ne du benn yoon du ñaari yoon ci kaw ay menaces yi nga xam ne ci la amee photos ndaw si photo yoo xam ne dafa def yaramu neen ci la ko doon menacé à chaque fois muy tëdd ak moom waaye ndaw sa bu mujjee dem ba sonn mujjee naa yóbbu yëf yi ci kanamu yoon seenuk atte ginnaaw bu ñu janook ñi nga xam ne ñoo leen doon atte moom ndaw si daal dinay dikkaat ca seen ba na mu demee ak na waa ji def ba sàkku ko benn yoon ba jot am ay photom lépp ma nga xewee ca biir hôpital régional bu Louga ginnaaw si nag la jàpp yooyu les photo bëgg publier waaye moom mi nga xam ne moom mooy waa ji daal dinañu koy jàpp jamono ji mu ngi ci loxoy yoon ñu àddu wax ci leneen kàddu yi Ousmane Noël Dieng yi jëmale ko ci Pape Djibril Fall askan wi daal dinañu koy ñaawlu mu di ay kàddu yu menace ginnaaw Pape Djibril bu mu waxee nekk jamono ji ndaw ñaa ngi ci jafe-jafe dem sax ba waxaale ci dawalkatu Jakarta yi moom Ousmane Noël Dieng nag bi mu janoo ak taskatu xibaar yi dal dinay dànkaafu Pape Djibril ba noppi dal di koy xas ba mu ràpp ne dawalkatu Jakarta gën moom li ko jaaxal nee na lu tax Pape Djibril Fall bañ njiitum réewum Sénégal di Macky saal ba noppi menacé ko ne am na lu mu koy waajal loo xam ne bu ca noppee moom Pape Djibril dootul tala toog ci télé yi di wax lu ko neex bay ŋàññi ki nga xam ne moom moo di njiitum réewum Sénégal di Macky saal président bu association nationale bu presse en ligne ci réewum Sénégal di Aliou topp ni ki démb ak seen sitting bi ñu doon amal daal dinay dànkaafu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguurug Sénégal ginnaaw menaces yi nga xam ne ñi ngi koy jot ngir nag teg ay daan ci seen kaw wala ay si yu bees yu ñu fas yéene daal di teg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di presse en ligne yi kàddu Aliou Top nag jàpp na ne que presse en ligne bi dañu leen a war a dimbali jàppale leen ba noppi encadré leen ndax ñi ngi def liggéey bu rafet firndeel la nga xam ne moom moo di njuumte gi ñuy def à chaque fois ngir jaawat la li nga xam ne moom moo di presse en ligne ak lii di médias sociaux yi ndaxte presse en ligne bi ci kàddu yi Aliou Top nee na li yeneen tele yi di def moom la ñuy def amaana sax ñoom ñu gën a gaaw joxe li nga xam ne moom moo di ay information yu wër ndaxte li nga xam ne moom moo di seenuk liggéey lépp dañu ko tënk ci professionnalisme te presse en ligne yi dinañu dugal seen loxo bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di économie bu réew mi kon jot nañu daal di leen di jox li nga xam ne moom moo di seen gëdd ndax lépp loo xam ne day jëmale réew mi kanam seen loxo ngi ci biir te lépp lu itam lu di ay xibaar yu ñu war a tasaare ngir askan wi jot ci presse en bi ñu ngi kiy def seen gëdd ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi dem ca joyin ak xeex bu méttee métti euh, ba fa am ni ki dimanche bi ñu weesu maanaam xale yi euh, dëkk ba ya doon xeex ngir nag ñu daal di génne ki nga xam ne moom moo di baara seen dëkk ba euh, mujjee naa jur jëye ba am ci ñàkk ba kanam benn waay boo xam ne ayaatam toll na ci juróom benn fukk ak lu ko toftal ba tax na waa dëkk ba nag la ñuy sàkk mu di baara seen moomu daal di génn seenub dëkk tax na papaay baara seen daal di réagir la mu gis mu di doo seen doom dina génn doomam dina génn seenub dëkk ngir abal leen ko filek ay fan yu néew ñu àddu wax ci leneen wax ci li nga xam ne moom moo di doomu ancien ministre bi di Salif Ba daal dinañu koy teg loxo ak la ñu koy toppe mu di Euh, fra association de malfaiteurs ak lii di njaayum yàmba ba noppi itam doon escroquer ay nit yoo nga xamante ne ni doon jëflante ak ñoom di encaisser seen xaalis di ko lekk bokk na ci ki nga xam ne moom moo di benn waay bu mu ko def euh, ba jël ci moom lu tollook un million cinq cent mu di Pape Diop mi nga xam ne moo ko mujjee porter plainte ba ñu yóbbu yëf yi ca kanamu yoon mu di Ahmed Ba mi ngi xam ne ab àtteem tëj nañu ko weer yàlla woo xam ne daf koy tëdd ba noppi daal di fay xaalis bi nga xam ne ay mbokk comme jotoon nañu avance juróom benn fukki junni la ca des di million ak li nga xam ne moom moo di ñeent fukki junni yu mu war a fay ki nga xam ne moom moo di euh, Pape Diop ñu wax ci li nga xam ne moom moo di la xew ca leer xeex bu méttee métti ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ya fa toogal Babacar ngoom bu Sedima ak villageois ya dëkkee ca Ndengleer la ñuy xeex nag mu di eh, kii di Babacar Ngom génn xajal leen seenub dëkk bàyyi leen ak seen suuf ni ki démb nag xeex bu eh, tàng te métti lool moo fa am ba tax na am na xale bu góor bu ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti métti mu di Ibrahima Sène mi nga xam ne ndaw yi Babacar yi ñoo ko dóor ay barre de fer ci bopp bi ba jamono ji mi ngi ci diggante dund ak dee ginnaaw si loolu itam fësal nañu ne am na yeneen ñu ci jëlee yu méttee métti ñu des ca Ndingler ak kàddu chef de village ba di lay Jonn la mu gis mu di lii lay coow nag duñu ko bàyyi tey duñu ko bàyyi ëllëg ndax jot na ñu daal di leen di bàyyi ak li nga xam ne moom moo di seen suuf ndax jàpp nañu ne que yëf ya dafa am li nga xam ne moom moo di mbirum jaay doole ñu wax ci coordonné coordonné bii di Assane Dieng mi nga xam ne jotoon naa jaar ci biir Sunugal 24 ca jamonoy émigration ba jotoon fee def ab émission ginnaaw si nag lañu ko financé xaalis bu toll ci euh, juróomi millions yu jugee ci FOSIP te ki ko jiiti di fay Faye boobu boobulee xaalis tuddoon nañu ci euh, ki nga xam ne moom moo di Mati Trois Pommes mi doxoon la li nga xam ne moom moo di diggante Thérèse fay Diouf ak asan Dieng moom ba xaalis boobu ñu financé koko ginnaaw si la ñu gis Assane Dieng daal di dem taskatu xibaar yi janoo ak Bougane Gueye Dany di wax ne kenn mësu ko financé euh, lenn loo xam ne rek jóge na ci nguurug Sénégal daal di nañu ko yóbbu vaar ndax jël nañ ñaari vidéo yi nga xam ne euh, ci la Assane doon waxee nekk jox nañ ko juróomi million ba mu tàmbali ab liggéeyam ak fi mu doon waxee nekk état bu Sénégal euh, joxu ko benn moom Assane Dieng moomu daal dinay niye li nga xam ne moom moo di eh, li ñu ko bindal ci eh, li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi eh, ginnaaw bu mu jokkoo ak kenn ci suñu ndaw yi ci suñu gaal 24 la mu jot a xamle mu di vidéo bi nga xam ne moom la ñu génne ca Sen bokkul ak vidéo bi nga xam ne moom la doon wax dañoo ca xool la leen neex ñu dagg ko ci tey itam jox na dig daje askanu